Euh, salaamaaleykum cher internaute univers info tv di leen bëggewaat bu baax di leen jox seen wàccuwaay naqar ak tiis tey la ñuy àndee ak yéen ndax gis ngeen euh, drame bi nga xam ni xew na fi ñu waxaat encore une fois euh, dëy en fi nga xam ne moo di mbuur di leen ñaanal yàlla ñoom ñi nga xam ne ñoo ba ñàkk seen bakkan ci lakk bi yàlla na leen suñu borom xare àjjanay firdawsi te gënal te fi ñu nekk gënal leen fii ñu jóge donc sans plus tarder nag ci lañ ñëw fekk si nga xam ne mbokk la mën naa ne wax sax jege ñaar ku sës la ci famille bi ngir mu daal di indi ay éclaircissement Ouma noo maa ngi si jaam sant yàlla baax alhamdulilah. nuyu maa ngi leen di delloo ziar bu wér wér di leen jox seen wàccuwaay bu baax di leen sant di leen gërëm. encore une fois ñu ngi leen di wax si ki leen digaale di ko di leen ñaan tamit ñoom fa ñu jëm gënal leen fi nga xam ne moo fi leen jóg. allahumma amin allahumma amin dégg leen seen wàll. gis nag fan yii yëpp euh, lu ci mel ni réseau yi ñu ngi euh, def euh, di transfert li nga xam ne moo di message bi xew na fi muy lakk boobu nga xam ne am na fii ci Mbour rawatina ñu ñàkk seen bakkan bari lool lool mu nekk lu metti naqar ak tiis ana lan ngay wax ci loolu ak lan nga ci famille bi. dogal suñu boroom rek sama njëkke la moo sama jëkkër ñoo bokk ndey baay mu bëgguñu lool nag dëkkooñu Joal lañ nekk. mais chaque jour day jóge Joal ñuy dégganteeg moom semaine bi paase rek la fa jóge kon dañ koy ñaanal moo njabootam fa mu jëm yal na leen gënal fi ñu jóge yal na àggale ji seen ndaw sa àjjana rama moom mënuñu koo fay xanaa dañ koy ñaan rek yàlla suñu borom jéggal ko seeni bàkkaar yu biir ak yu biti njëkk ak yu mujj yu àddina ak yu àllaaxira lakk gi nag nii lañ ko yëgee ay quatre heures de matin rek la ñu ñu départ ñëw lakk gi nag ñun xamuñu lu ko sabab parce que néeg la ak saal moom ci biir néegam lay tëdd ak xale yu jigéen yi dafa yor doom bu góor bi mu am benn bu góor bi mu am dafa wére di mais ci saal bi lay tëdd xam nga ñaari port la po ngay tëj porte saal bi tëj port euh, bunt bi véranda bi léegi lakk gi nag moom ci biir saal bi la jóge te doomam bu wére di boobu day tux day tux foofu daal la lakk bi jóge parce que biir néeg ba moom tàkk-tàkk ba jotagu fa woon àgg waaye saal bi daal li ko lakk moom sabab bi moom ci saal bi la jóge fekk ji ñoom ci néeg bi si biir ñun daal loolu lañ si am waaw. sànq nag wax sa biir wax dafa am doom bu góor boo xam ne wérul moom lakk bi da koy bokkaale wala mujj na mucc. waaw déedéet kenn mucc si ñoom ñëpp ñoom ñëpp dañoo génn àddina ñoom ñëpp ñeent yu góor la ñeent yu jigéen la ak benn bu góor boobu. benn bu góor boobu nag dafa wéra di moom mooy taawam dafa wéra di ay at yu baree bari sax waaw. bëri na ci internet bi rumeur yi bëri ay lan moo ko sabab lan moo ko sabab mais yéen en personne yi nga xam yéen nekk ci famille bi yaa ngi ni doomu bu góor moo xaw a wéra kon suñu la déggee comme doom bu góor bi moom moo sabab moo def li nga xam moo di lakk. waaw lakk gi moom mën nañu si moom la jógee parce que nekkul courant parce que ñu ñu dëkkal bi ñu leen fëggee doomu rakkam jigéen bi moo génn di sawi mu gis néeg bi saxaar mu daw ee papaam ak yaayam bi papaam ak yaayam ñëwee daal di fëkk dajji bunt bi léegi ñu commencé di fay waaye ñoom ñoo coupé courant bi ñoom biñ see tàkk-tàkk bi ñoom ñoo coupé courant bi te ànd booyu fa woon dara booyu fi kon nag lakk gi moom foofu lañ ko sabablu woon parce que xale bi dafa wéré di te day tux cigarette te du nelaw guddi kon mën nañ lakk gi ci kooku la sabablu si moom la jóge bëri yi ñuy wax kon lakk gi foofu la jógee instant bi nag ñu leen fekk ci li nga xam ne moo di sarax bi ndax da ngeen jot ci yooyu koor war non jotaguñ ci mais nee nañ dinañ leen denc 4 heures bu soobee yàlla parce que kayit yëpp pare na waaw papier yëpp pare na quatre heures daal lañu ñu am yaakaar ne dinañ leen denc. Mhm. ban anam la ñu ñàkkee seen bakkan maanaam dañoo décomposé wu carrément wala dañoo dee rek euh, ci affaire bi nga xam ne mooy am na mooy cigarette. ah loolu daal moo leen lakk parce que ñoom bi leen chapeau di génn fekk ñu ñàkk seen bakken biñ leen di yóbbu hôpital moom yóbbuwuñu bakken fekk nañ leen ñoom ñëpp ñu ñàkk seen bakken waaw. ko wax sa biiri wax euh, moom mi nga xam ne sa njëkkee la ana nan la meloon ak nan ngeen doon dund. baax rek boole ñëpp def leen benn. nit ku baax nit ku sincère nit ku dëggu nit ku bëgg ay càmmeñam ak ay jabari càmmeñam ak ay mbokkam ak ay doomam doomu càmmeñam yi yëpp ay xale yu jigéen ay moroom la leen def groupe bu xale yi yëkkati mu ngi cay ànd ak ñoom di kaf di ree kenn mosu koo àtteeg jabari càmmeñ nit ku sincère a ngi noonu nit ku baax nit ku dëggu nit ku mën a jël alalam di ko jox ay jabari càmmeñam ak ay càmmeñam kenn xamalu ko dara ñoo nekkandoo woon fii ci kër gi ba ñuy xale di fi sëy ba fi niñ fi jógee kenn ku nekk dem sa kër kenn masu ñoo àtte ak moom ñun la defoon xarit ñun la defoon morom nit ku baax nit ku baax nit ku baax a ngi noonu ñun nag am nañ yaakaar fa mu jëm fa mu jëm ak njabootam am nañ yaakaar bu baax si moom ndax wax dëgg fa yàlla ñun ñii ñoo di ay xaritam te du ci def kenn lu ko naqare wala mu wax ko ko loolu jafe na dañ koy ñaanal yàlla rek njaboot gi nga xam ni yàlla def nañu ànd ci tamit ban ñan façon xale lañ xale yooyu tamit xale yu baax xale yu bëgg seen yaay xale yu bëgg seen yaay xale yi boo ñëwee si kër gi fu seen yaay toog ñu nga ñëw uufu kii uufu kii uufu ay mag yi jëmm lañ xale yi bëgg seen yaay seen yaay bu ñëwee Joal sax su guddeewee dañ koy kar karu téléphone oote téléphone yaay foo ne yaay foo nekk xale yi bëggoon seen yaay seen yaay bëgg njabootam di daw guddi di daw bëccëg ndax tam tey jii tamit euh, bi loolu amee est-ce gis ngeen fii lu ci mel ni ay autorité wala ñenn ñi parce que boo xoolee xam na ni lu metti la. waa metti na de waaye wax dëgg fa yàlla démb ba tey ñoom tamit ñu ngi ñëw kenn ku nekk préfet ñëw na fii commandant bi ñëw na fii wax dëgg fa police ñëw na fi ñoom ñëpp ñëw nañ sàppo tamit ñoom ñëpp ñëw nañ ñu di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal ñoom tamit taxawaay bi moom wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko lool. waaw démb ba léegi ñu ngi fiy jaabante nekk ak bokk koog ñun kon sant yàlla rek sant yàlla. tey jii ban message ngay lancé en tant que yaay parce que li dal fii métti na trop waaye tamit ñaanuñu yàlla mu dalaat keneen yàlla na fi am en tant que yaay ban message ngay bàyyi. ah fogoru rek ñu fogoru rek ndax yàlla jaama ak yàlla ak dogalam xëy na lii sababu suñu borom la rek nii la waroon a demee xëy na yàlla moo ni woon du ñu romb bii bés bii moo doonoon seen bés. waaye nag dañuy yokk a ñaax rek ñu ndayi ñu yokk a sabablu rek yokk moytu lu mel nii parce que lu mel nii tamit dinañu yee bu baaxa a baax a baax a baax ñu yokk ko sabablu waaw yokk mooy ko tamit yàlla moom bu dëgg yàlla kenn mënul xëccoo moom lu mu namm si jaamam tamit bu la ci yàlla di yóbbu sax doo ko xam parce que ci la la war a jaarale waaye lépp rek ñu delloo ko ci suñu borom lépp rek ñu ngi koy delloo ci loxoy suñu borom. tamit ñu ngi bu baax wax maa ngi lay sant bu baax a baax a baax maa leen di sant bu baax a baax a baax di rafet ñuy rafetlu seen teewaay parce que démb ba léegi yéen a ngi fii ñëw te amaana yéen a ngi tasee nit ñoo xamante ne ni situation yi ngeen leen fekk mën na am ñu di leen rejeté wala dara mais ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax di leen sant bu baax di ñaan yàlla yàggal seen taxawaay rafetlu nañ ko torop ñu ngi leen di sant di leen gërëb sa njëkk boobu ba yan kàddu nga mujjee euh, bàyyeeku ak moom ak tamit tey jii lan moo lay gën a marqué ci moom. bëri na moom. wax dëgg yàlla bi ma mujjee waxan waxtaan ak moom mu ñëw fee semaine bii passé kese la ba 10 heures ñoo ko gunge ba garage mu reer ba suur wax dëgg yàlla li ma weccoonteeg moom moom wax dëgg yàlla mënu maa toog ci internet di ko wax waaye xam naa ne moom sama nit la sama nit la moom dëgg yàlla sama nit la. Mhm. ñu leen koy delloo bu baax a baax.

mbokk yi xarit yi ñuy bàyyi xel ci univers info TV di leen jaajëfal la bu baax baax di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar comme ni ñu amee habitude di ko def waaye di mastawaat famille bi nga xam ne moom la ñu fekk fii si Mbour gis ngeen ni euh, li fi am mu nekk naqar ak tiis waaye lu méttee métti dal képp koo xam ne yaa ngi yeewoo muy lakk bu méttee métti ba yóbbu ki nga xam ne moo di euh, soxna si ak ay euh, doomam mu nekk tamit xibaar boo xam ni naqar nañ ko bu baax a baax encore une ànd ca équipe univers info TV bi yëpp baax baax ci noonu nag la ñu ñëwee fekk si xarit doom waaye membre famille bi tamit euh, ndax boo xoolee sax jege ñaale bu jege la ki nga xam ne ñoom ñoo perte seen bakkan ñu daa koy bàyyi mu daal di soxna si noo def. maa naa leen ñëpp di masawu coono aussi di nakaru li nga xam ni moo di drame bi nga xam ne xew na fii ci Mbour tey ji yow lan nga ci ñi nga xam ne ñoom la sunu boroom daal di génn. waaw bàjjen la ma sama bàjjen la mook sama papa ñoo bokk ndey ak baay sama rakk papa la sama ay doomu nijaay doomu bàjjen lañ ma ñoom. Euh, bi affaire bi di am fan la la fekk. ñu Joal la ñu fekk mais ñu ngi ko yëg ay 5 heures du matin jàpp 6 heures si la ñu woo wax ñu ko. bañ bañ ñuy woo sama yaay lañu woo ay 4 heures mais moom ba muy si dafa tiit si la woo sama mag bu jigéen mu wax ko ko après si laa dégg biir bi ma génn. mu ne bàyyi général ma mool tàkk ak ay doomam par la gëmuñ ko woon sax après si lañ toog noonu ma woote mbuur fii ma woote suñ beneen kër gi nekk fii nga yéen man leen ñoom ñu ne yëguñ ko man ne leen dem leen onze sama kër maam am na lu fa si la ma di jooy ma ne ko lan moo xew mu ne dëgg la mais ñoom génn nañ mais ku góor ki lañ gisul woon mais bi loolu amee ay bi leen ko gën yëgee tamit ci ban anam la leen fekkoon ak lan ngeen yëg ah man moom franchement gëmuma ko woon bañ ne ba ma wooyee di jooy laa ne ko lu xew mu ne ma génn nañ mais ku góor gisuñ ko ma ne ko loolu mënul nekk bàjjen mënul dem ak ay doomam parce que ba mu jógee kër ga yàggul même jour ba muy ñëw man ma fa mais ñëw na fa deux fois première ba la ma fekk mais deuxième ba dafa fekkoon jour élection yi ma dem siège ji fekkuma fa woon ma ñëwee lañ ma waxoon ne bàjjen ñëwoon na fi. tey sa bàjjen lan nga ñu mën a wax ci moom. bàjjen nekkoon nit ku nga xam dafa bëggoon bokk. moom à chaque fu mu toog day nekk di defar xale yi suñu nekkee dañu werante suñu biir day ñëw ñu sakk encourant fii la ñuy daje famille bi yëpp suñu ñëwee mi ngi suñu biir ñun ñëpp ci biir xale yi ba jan kafre ba dimanche bi ñu doon def fi organiser famille bi yëpp mi ngi toog naan ay waaye su ma deewee sama njaboot ji ñu naan kaan baa jën mu naan kaan sa mag bee yam na ngeen bëgg ay waxi dee fu ngeen fekk da ngeen di wax waxi dee mu ne damaa xam ne su ma deewee sama ñu ne ko deewee goo da ngay dund ba si kanam yàggul dara ci septembre ci kankurang yi rek. kon yaa ngi ko wax sa biir wax mu mel ni ku la jege woon nga parce que yaa ngi naan euh, kankurang yi bu amee fii la ñuy ñëw ci moom kon nekk na nit koo xam ni jegante woon ngeen yéen. jege woon nañ bàjjen ñëpp la jege woon moom dañoo wax naan ay bàjjen copine moom loolu la doon woowee boppam ñun ñoo nekkoon ay moroomam su ñëwee naan leen may seen bàjjen copine bu leen mën na bu kaa leen ngeen wax ma dañ daan kaf ak moom di reetaan moom bu ñu xasee ba ne salaamaaleykum moom dematul fenn ci garab bi la ñuy toog ba suñu heure yu ñibbi mu ngeen ñu yàggul dara. moo di ay doomam tamit ñu daal di ñàkkaale seen bakkan est-ce que amoon nga complicité ak ñi nga xam moo di ay doomam. waaw Rokhaya moom laa ci xawoon a maasil da daan ñëw kër ga ba mu gën a nekk xale parce que moom papaam foofu la dëkk Joal foofu su ñëwaan maag moom ñoo daan nekk ba keroog nii ñibbisi mais par la suite gëj xawoon naa gëj Joal nag mais même am na sama benn foto bi ma la envoyé yére bi ma sol moom moo ma ko jox ma naan ma ay lu ma mujjee wax ak moom mu ne ma yére ki leen koy jaay fëgg jaay la ay 300 la leen koy jaay affaire yooyu ma ne ko soo ñëwatee nga tegal ma ci oto mu naan ma waaw loolu laa mujj wax ak moom. xale aussi ñoom Nafi suñu xarit lañ woon amul moom benn problème yaroon na ay doomam soo leen yónnee dañuy dem te tuñ ci teg waa soo xasee ba ñëw bu ñu lay may ndox dañuy may sukk ba ci suuf pare woo doo jóg rokkee tamit loo ko wax dafay reetaan rek bàyyi musuma kaa dégg mu wax ak kenn te ñoo yaroondoo ba tey yàlla def li muy def mm-hmm. sànq ñu ngi wax ni que euh, ki nga xam ne moo di taawam bu góor dafa xawoon desee maanaam ñëw woon à 100 pour cent ba sax ne nañ moom moo causé li nga xam ne moo di lakk bi euh, ndax cigarette la yoroon a ah, pour li mu yoroon moom franchement loolu leeru leeruma mais moom dafa amoon problème mu xel dafa amoon ay rab rab yi amoon na ay jamono wéroon na mais dafa demoon ba da koo dikkalaat daf daan tuux nag rabi si cigarette la ko xiiroon mais pour li ko causé moom franchement loolu leeruma daf daan yor cigarette aussi dégg naa ñun njëkkoon na yoroon na almet seen photo yi commencé tegoon ko moom commencé woon tàkk njëkkoon na loolu njëkkoon na koo def ba foofu fa tooy ba nee nañ soo ko xoolaan mi ngi ñuul ñuul mais pour que moo causé loolu loolu moom franchement leeru ma li ma ci mën a wax daal mooy ku la wax ne gage la waxu la dëgg ku la wax ne garab yoo parce que ñoom duñu taal garab yoo lépp luñ soo wax ne lii moo ko waral waxuñ dëgg du courant aussi na bu nekkoon courant kër gi yëpp ay tàkk deewa ñëw yàlla ak ndogalam ñi dem rek ñoo la mën a wax kan moo causé affaire bi yaa ngi wax naan seen appartement mu mel ni kër famille lañ nekkoon wala seen côté. kër famille la woon côté boobu noonu mooy ñu mujjee ci kër gi saal la ak néeg saal bi ci la xale bu góor bi daan tëdd ak rokkay ku mag ki par la si mu ne moom ñemeetoo ci saal bi si la daan dem tëdd néegi yaayam yaayam di fanaan ci kaw ak xale yi rokkay di fanaan ci suuf ak nafi ci topp. ci comme ñooñu ñëpp ñoom ñëpp ñoom rek ñoo mujjee ñàkk seen bakkan maanaam kenn génnu ci. kenn génnu ci parce que dèjà bi ñu xoolee dafa mel ne lakk bi ci salle bi la commencé noonu jëm si biir néeg ba. mu mel tamit sa daf doon fatt. waaw amoon na feebar na parce que feebaroon na moom chaque jour bu toogaan na naan sama feebar bi moo may yóbbu affaire yooyu noonu mais malheureusement li lim doon wax ne moo koy yóbbu loolu yóbbu ko. leneen moo ko yóbbu lu mu dul mosul ñun tamit lu mosul xalaatee parce que bett nañu wax dëgg neex yàlla bett nañu man moom franchement ba tey ni ma toogee yow gëmuma ko man ba tey jii gëmuma ko parce que Rokhaya mu nekkoon xale bu baax tolloon ci àddinaam kon yéen ñii daal su ñëwee duñ ko mën a gëm mais dañuy sant yàlla. image moo la gën a marqué ci Rokhaya. Rokhaya image bi mu mën a marqué ci moom la fois passée kankurang ci ngoon ñoo taxawoon di def vidéo yaa ngi sama téléphone yi. ba ma defal ko ay vidéo envoyé ko vidéo yi ba ma koy envoyé vidéo si la téléphone mu sama téléphone daa yàqu ba tey vidéo yi gisu ko te ñoo doon defandoo vidéo yi taxaw mu ne ma envoyé ma ma envoyé ko téléphone am yàqu ba tey gisul vidéo yi. Mm-hmm. tey tamit rumeur yi bëri na ci internet bi. bari na ñi naan gage ñi naan dañ leen a taal ñi naan est-ce que xaruwuñu damaa xam ne bàjjen ni meloon ci famille bàjjen bu ñëwee Joal su ne ko bàjjen fanaanal sax mu ne la mënuma fanaan ndax sama njaboot gi la wax mu ne la njaboot bàjjen du dem fenn guddee loo ko mu ne la njaboot da daan daw di dang dang loo ko wax lépp mu ne tam njabootam yooyu mu daan bañ def bàyyi ginnaaw loolu la yàlla def bawu leen ginnaaw benn yoon mais dañuy sant yàlla ndax boo xoolee tamit nee nañ sax ki nga xam ne moo di police ubbi na ab enquête pour mën a xam cause. oui police démb ba tey ñu démb ba tey ñu ngi ñëw ak a dem bu ñu ñëwee ñu baare fee def après ñu demaat ba tey aussi joxaguñu ñu yi. tey en tant que jeune lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo nekk ak seen yaay wala sax ñu nekk ak nit ñoo xam ne wéruñu nan lañ war a def. ñu gën a bàyyi xel rek surtout nit ku nga xam ne wéru de koy gën a bàyyi xel di ko surveiller bu baax wax dëgg neex yàlla bàjjen def na lu mu mënoon ci Modou mais ndogal la ñëw. buñ ay nit ñëwaan sax da amoon garab boo xam ne bu ko joxaan day nelaw chaque jour loolu la ko daan def ndogale yàlla ñëw ak ay ndogalam ñu nekk seen ak yaay ñu gën a fonk suñu yaay gën a rafetal ak suñu dëkkandoo xam ne dee day ñëw te day bet rokko yo ku ko waxoon day décembre bi doo ko fekk weddi ko ndax yére décembre bi jënd na ko ba pare ba ñëw xam ne àddina amul solo nañ gën a rafetante rek di ñaan yàlla mu fekk ñu ci mujj gu rafet te ñuy wax naan lii lii nañ bàyyi parce que xamuñu buñ xamul buñ leen laajee nañ wax xamuñu rek moo gën ñuy bàkkaar. jaajëf ok merci beaucoup. la mastaw bu baax a baax. ñoo ko bokk. leen ko toppal euh, lépp luy actualité rawatina drame bi nga xam ne xew na Mbour ci lañ ñëw fekk see nag ñi nga xam ne ñooy ay mbokk ay jege ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci drame bu ba yàlla def ñu daal di ñàkk seen bakkan maman nooy. maa ngi ci maa ngi ci jàmm. ñu ngi leen di sant di leen jëfal di leen jox seen wàccuwaay man li ma waroon wax yëpp kii wax naka xanaa lu baax li ma xam ci moom rek ndax bi ñu sëysee fii mu gaañoo tey di ons ñu fekk ka fi muy suñu rakku jëkkër man sama taaw ki topp ci moom moom lañu ko tudde waaye lu baax rek lañu xam ci moom bëgg ay càmmiñam bëgg doomi càmmiñam bëgg jabari càmmiñam doon nit ku baax ku sincère koo xamante ni waxul kenn lu bon deful kenn lu bon nekk bu rafet la ñu nekkandoog moom ba ni mu fi jógee kon tey jii lu ñu naqadi rek lañu am si moom waaye amuñu lu ñu neex ci moom xëy na nag lii la yàlla dogal te lu yàlla dogal kenn mënu ci dara ndax ñun ñëpp ku si nekk da ngay dellu ci yàlla ndax fa ñu lañ jóge woon fa la ñuy delluwaat kon ñu sante ka yàlla rek xam ne nii mu amee noonu la ko yàlla bëggee mu defe ka noonu kon ñu ngi koy sante yàlla rek xam ne nag moo fi ñàkk bakkan ak ay ay doomam lan la woon ci yow. sama njëkke la woon mook sama jëkkër ñoo bokk ndey ak baay ñu nekkandoo woon nekk bu rafet rek li comme li ma la wax nekk benn kafree suñuy doom ñooy ay moroomam lu ñu soxla suba ba ngoon mi ngi ci taxaw mosuñu def lu ñaaw mosuñu ko wax kon fa mu jóge fii mu jóge fa mu jëm yàlla na yaa yàlla gënal fa mu jëm yàlla naka malaakam yërmande teeru yàlla defal ko maxfira defal ko àjjanay firdawsi mu rëcc lu mu doon def ci àddina lépp lu mu noon ci àddina rek yàlla na coono am yem foofu moom njabootam lii nag yàlla moo ko dogal te xay na ni mu ko defee noonu moo gën kon ñu sante ko yàlla rek waaw. sa njëkkee laa ko bi ñuy mujjee waxante man àjjuma bii laa fi jóge bi ma ko vocalé donc yow lan moo tax sama vocal liiroo ko bu dafa ma ne gisuma ko woon ndax dama connecté wul loolu moo tax liiruma sa vocal waaye wax yu rafet rek lañ doon waxanti waaw wax ju baax waxtaanu àddina mënul ñu nag toog di ko wax nii ndax internet la waaye daal nit ku baax la woon ku ñu muñaloon la woon nekkul njëkke loo xamante ne da doon xeex ak jabari càmmiñam wala muy dóor seeni doom yàlla xam nag xëy na nag lii la ko yàlla defee waaye bu ñu sañoon mu dund ba fekk suñu njariñ njaboot waaye lii moo neex yàlla mënuñu ci dara wasalaam. moom ay doomam maanaam ñi fi jóge ci ay doom ana yan témoignage ngay def ci xale yi. doom yooyu it wax dëgg mosuñu ñu joteeg ñun dara mosuñu joteeg suñuy doom dara fu ñu daje fu ne kaf ree kaf ree rek. la lañuy la ñuy def doomam ji nga xamante ni jànq la ak doomam ju góor kenn mosu ko àtteeg suñuy doom yàlla xam nag waaw kenn mosu leen àtte. Hmm. rumeur yi bëri na ci internet bi ku ne ngi wax nun ko nu ko safee tey en tant que mbokk lan ngay wax ñooñu nga xam ñi ngi wax loo xam ne leeru leen sax wala xamuñu ci. ah yi xam nga mbiri àddina la nit ñi ñooy wax rek waaye xam nga ñiy wax xamuñu ci dara ndax moom magam jum bokkal ndey ak bàyyi la dëkkal ku jigéen ak ku xam nga ñooñu duñu ko taal yàlla ñëw ak dogalam te li yàlla dogal kenn mënu ci dara ndax ñun ñëpp si yàlla lañ jóge ci yàlla la ñuy dellu waaw nit ñi nag kenn moomu leen ndax internet bi tiktok bi ñëpp lu neex waay wax fu nekk da ngay jël sa waxi bopp di wax waaye yàlla xam na ni li ñuy wax xamuñu ci dara ñoom ñun ñii sës si moom ñoo ci yem waaw ñun Gàmbi la ñu nekk rakkam bu góor boobu ñun Gàmbi lañ ne fajar lañ ñu yee wax ñu ko ñu ñëw waaye xamuñu ci lu dul lool xamuñu lu sabab lakk gi wax dëgg yàlla. bi nga nekk bi nga yëgee nouvelle boobu ana lan nga yëg. am naqar ak tiis yeewuwaale naqar ak tiis wu metti waaye nag yàlla moo ko sañ nit sañu ko nit sañul lii yàlla moo ko sañ waaye am nañ ci lu ñu naqadi am luñ si tiis ndax bu ñu sañoon mu dund ba fekke suñu njariñu njaboot ñu dund ba fekke njariñu njabootam waaye lii moo neex yàlla. loolu la yàlla dogal kenn mënu ci dara. wax naan li nga xam ne moo di sigaret moo causé ba lakk ana lan ban message tamit ngay ngay ngay ñaaxaat xale yeeg ak ñi nga xam ne ñooy utiliser genre yu mel ah, xanaa ñu moytu rek ndax xale yi moom kenn mënalu leen dara xale yi léegi moom ñëpp a xanaa ñu jéem fagaru rek te muñ rek xam ne lii yàlla dogal naka ba pare waaye ñu fagaru ëllëg pour leneen bañ a am waaw ndax xale yi moom ñëpp a yem fii mu toll waaw waaye yàlla baax na. jëfal bu baax sant yàlla waa baax na jërëjëf. comme nii la rek euh, ni ngeen ko gis. xool waa Fass ba xam egg si ngeen raxas ñaata ñaata ci la ah say. ah ñaar kii bi sax la tàntaan la waaye man lañ bu nekk lay waxal bu nekk lay bu nekk bu nekk man daal man damaa dugg ba jaaxle mënumaa sax ci moom man daal xam naa ne affaire bi nag kenn xamul ne nag bu yàqaa loolu yàlla rek mun dogalu yàlla mun am nañ yaakaar ci moom am nañ yaakaar bu baax ndax ñun ñëpp tamit ñu ngi koy waaye bu ñuy critiqué ñun moo yor suñu numéro téléphone waaye ku yor ko sa ay numéro yoroo ko xamoo la ak xamoo la moo fa xew constat bi ñu wax dem na ak waa këram yëpp ñu leen doon ñaan nekk teyoo foofu man maa daw maa di wàññi bi ma ñëwee fekk naa sàppoon génn la sàppoon rek vraiment muy ñëw dëkkandoo yi fu nekk def nañ seen liggéey avant sàppoon di ñëw ndax sàppoon yi ba tooñ yi xale yi léegi dañoo bari di leen tooñ nag boo soxlaa si gratuit duñ gaaw di di woote ñu leen doy waar moo tax seen ñoom lañ yeex bi ñu ñëwee fekk nañ leen ñu génn leen def seen kër ba yóbbu leen gis nag buñ ne yi dañ ne lii lan moo ko a lu mat xale bi xalaatu woon bi mu daan dem di liggéey sax xalaatu woon a dem ci naan àll bàyyi ci njabootam tey yàlla dogal lii mu bëgg njabootam bi taxaw njabootam bi ba yàlla allo ko galaasee ah yow yow galaase ko ba mu ne sax galaas gaa ngi nii ci kawam danga koy ñëw ku la jàppale nga yóbbu mama Xadi mama Xadi lu tax nga ñëw waaye ni mënoon nga ko ah, xale jàngi na mu ngi nii mu ngi nii ala ma wéy jël xool leen foofu ngeen jàpp leen loolu daal moom moom moom lañ la koy ñëpp yàlla rama daal lu wër papaam nag moom yàlla moom la ko yàlla boole loolu bu def dara daal wax sax sam papa man jabari papaam laa waaye bëggul ma wax papaam loo xam si naan naqari naqari la kon dëgg yàlla doomu bàyyi bëgg pap doom bëgg bàyyi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu bokk appartement sax ñu nekk ci àll ñu nekk ci seen ginnaaw dañu ñëw saxaar sa ñoom yéen ñi magam rakkam ñoo xam ne waaye yàlla yàlla yaa ñëw na la ko jete ko seen diw ah bu ko indi woon si ñaañe mii rek ñaaña rek yaam indi ko fii yaam dina doyal cent kilos di karaat yi dimbalante gi yaay mo allo allo waaw waaw xale yu ndaw xale bu góor bi daal dafa xaw a des daal

man kay ñoom démb ñoom ñëpp waa kër gi fii la ñu man maa la taay woon a woo rek man maa la taay loolu daal lañu gis balaa passé ba pare sori bee tax sax li ma soree sax ma ndugg na asu ah waxaguñu dara de xaaral ma xaaral ma laaj tubaab ma mburu mi du mat de góob ma ko mën a mat waaw yéen leen ko noonu de laaj waaw Mama cách nhỉ nhớ ba ba pare dañoo robeekul sax moom robeekul mama dégg ma naa la kañ nga ñëw suba yaa ñoom yaay ànd ñoom yaay ci sa naa ñëw ba nuyu leen te gisuma la